lu xew moy juróom ñentelu congrès ordinaire bi nga xamné fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Amadou Bamba ñokoy amal muy ittihaadu atbaayil khadim li taawuni wa tamassuk bi dinil khawim te ëmb wilaay yi yëpp muy yu yi ak wilaay yu ndaw yi ak yu jigéen yi ñu diko amal nak fi ci Touba ci résidence Cheikhul Khadim Darul Manan buñu gisé téwayu kilifa yi. ci jataay bi sëriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi fi sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi ci jataay bi sëriñ Assane Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi ci jataay bi sëriñ Mahmadan Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi ci jataay bi soxna Daba Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi fi sëriñ Xaadim Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ xaadim Louga moom sëriñ Mbacke soxna Lo mi ngi ci jataay bi soxna Seyna bu Mbacke moom sëriñ Abdul Fatah moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi ci jataay bi waaye nag ñoom ñi ñëpp ñu teewal fii seeni kilifa teewal fii sëriñ Moustapha Astou moom sëriñ Mbacke mi nga xam ne moom moo jiite fédération bii di président bi waaye teewal fii itam sëriñ Abdourahmane mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Cheikh Amadou Mbacke tey président d'honneur ci fédération bii. waaye teewul fii itam jëwriñu kër gi jëwriñu Daaru Xuddoos muy sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak ki nga xam ne moo nekk ci boppu kër gi muy sëriñ Ahmadul Muxtaar ñu leen ñaanal ñoom ñëpp suñ borom yàggal leen fi te wéral leen duñu guddal kàddu yi ñetti kàddu rekk lay doon danañu jox sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngeraan mu ñëw ak nun ci woote bi liy xew ak kilifa yi nga xam ne yëpp ñoom lañu ko ñoom lay tudd ngir ñu xam ne woote bi ñëpp ñoo ko bokk. suñu noppee itam kuréel gi dafa ëmb ay gone ak jigéen ak i mag jigéen ñi itam am cër bu mag liggéey bu rëy buñ ci def ñoom itam dana jox soxna Faati xëri incha allahu mu yëkkati ay kàddoom ci turu nday soxna Faat Mba Bàkke moom sëriñ Cheikh mi nga xam ne moom mooy présidentu wilaya femme national waaye suñu noppee itam kilifa gétaay bi muy sëriñ Xaadim Mbàkke jox na kàddoom sëriñ Malick Dem moom sëriñ Abdourahim Dem moom sëñ ma Dem mi nga xam ne moom mooy vice président bi topp ci sëriñ Moustapha Mbacké Astou te nekk fee ci njaarim kon kàddu yi noonu lañ bëgg mu tëddee nii. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki fédération yi bokki daayira yi ak fuñ fi mën a nekk ci këru diine yi seen bokki talibe ñuy tuddoo ci fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba muy ittihaadu atbaayil xadim li taawuni wa tamasuki bi diinil xawim ñooy yëkkati seen kàddu ci turu sëriñ Moustapha Gaynde Fatma ñooy xam ne mooy président fédération bi teefuk Cheikh Mouhamadul Muntaka xalifa général des Mourides ci ndigalul Serigne Ahmadul Muxtar khalifa cheikh mouhamadul mustafa ci ndigalul sëriñ cheikh mbàkke madina mi jawriñi darul xuddus ak sëriñ cheikh mbàkke ali ak sëriñ moustapha mbàkke moom sëñ sidil muxtar di xalifa njabootuk sëriñ baara ci turu sëriñ abdourahman mbàkke mi nekk ci bopp njabootuk sëriñ cheikh ahmadou mbàkke yooyu woo mboolem buntu këri sëñ Tuubaa yépp di ko tàmbalee ci sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamad al Fadel di woo sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp di woo sëriñ Cheikh mbake moom sëriñ Abdoul Khadir ak mboolem njabootu sëriñ Abdoul Khadir gépp di woo sëriñ Dame Atta ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima gépp di woo sëriñ Cheikh Mbacke Chouaïbou ak mboolem njabootu sëriñ Chouaïbou Mbacke gépp di wo Serigne Cheikh Mbacke sale ak mbollem njabotuk Serigne saliw Mbacke gep di wo Serigne Mamor Mbacke ak mbollem njabotuk Cheikh Mouhamadul murtada gep di wo soxna Maam Boussa Mbacke ak njabotuk Serigne Abdou Samad gep ñu ngi wo mbollem buntu kër Serigne toubay di wo Serigne Cheikh Darou Rahman ak mbollem njabotuk Cheikh Abdoulahi gep ñu ngi wo mbollem buntu kër Serigne toubay jigéen ñi la tàmbalee ci soxna fatidia ba ci soxna Maymuna ñoo ngi waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine ci turu sëñ Moustapha moom sëñ Cheikh Mati lay mi nekk ci kanamu njaboot gi ak mbooleem njabootuk sëñ Baara gépp ñuy woo itam mbooleem seex si nga xamante ni moom lañ bokkal kër gi di woo mbooleem seex yi aju ci yoonu murit di wooy itam mbooleem askan kër maaram la tàmbalee ci sëñ moor Jaara kër maam Thierno Birahim kër maam Cheikh Anta kër sëriñ Masamba kër sëñ Cheikh Absa woo itam njabootuk sëriñ Balla Coro bàyyiwuñ kenn ci askanu Kër maaram ñu ngi woo njabootug sëriñ Cheikh Thioro mbokki mbusoobe yi bàyyiwuñ ñenn mboolem umma islaam yi bépp mboolem tarixa suufi yi nga xamante ñoom lañ bokkal réew mi bàyyiwuñ ci kenn ci neuvième congrès bii nga xamante ci lañ jëm ñu war cee fésal lenn ci gis-gisub sëriñ Cheikh ak taxawaayam ci nas jullit ñi ci genn buum ñu war caa teewal itam lenn ci liggéeyu fédération bi ci diirub juróomi at yi mu weesu dambale 2013 ba 2018 moo xam ci wàllu éducation la muy lépp loo xamante ni dafa aju ci am njàng ak njàngale ak taxawaay bi ci fédération bi taxaw moo xam ci wàllu social la ak développement ci ak li ci fédération bi taxaw moo xam itam ci wàllu communication ci fédération bi taxaw ci jokkale jullit yi ba li ñu war a xam agsi ci ñoom ci wàllu organisation ci ay taxawaay yoon wi laaj te fédération bi di ko taxaw ak ci mboolem lu jëm ci wàllu administration ni ko fédération bi di dunde di jëm ak a taxaw ngir lëkkale jullit ñi ci benn buum muy wahdatu saf te sallallahu alayhi wa sallam doon ko jàngale mu feeñ ci biir liggéeyu sëñ mu doon ko soññ ginnaaw bi sëñ Cheikh génn ci taxalinu bees woo xamante ni ni adduna soxla na ko tey te jàpp nañu mooy solution bi nga xamante ni ni su ko nit ñi dundee violence dana jóg ci àdduna ci la ñuy woon nit ñi ñu jëm ci la vingt 26 ak vingt 27 ci mois de janvier ci kër sëñ Touba gi ci Darou Marnaan bàyyiwuñ kenn ci mboolem seex si nga xamante ne ni ñoo toppoon sëriñ bi bàyyiwuñ genn njaboot goo xamante ne ni ci biir yoonu mu murid la aju bàyyiwuñ benn dayre boo xamante ne nii ci biir yoonu murid la aju ak fu fi mën a nekk ñu ngi koy woo ngir ñu bokk jàngatantoo ben gis-gis bi serigne Cheikh amone ci nas umma islamique bi ben rawati na yoon serigne Tuubaa wi ba taxone mu tudd ittihaadu atbaa'il qadim li taawuni wa tamassuki bi diinil xawiim muy benn taalibey serigne Tuubaa yi ci japp ci diine ju dëgër ji ak assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu turu fédération Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde fatima di leen nuyu ci turu secrétariat wilaya fam bi nga xam soxna Ndeye fatima mbake moko jité di wax nak ci aw di jottali ay soññe yoo xam ne nii dafa aju ci bis bii nga xam ne moom la ñuy woote muy bis bu màgg boo xam ne nii jullit yëpp la itteel ndax ku dégg turu ni sëriñ Seex tudde fédération bi rek turi jullit yëpp la woo muy bu góor muy bu jigéen muy te ak tarix boo man di bokk rek sëriñ Seex dugal na la ci biir woote bi ndax ku dégg ni niñ tëggee fédération bi rek ak ni ko tudde kenn génnut kon soxna si nee na mi nga woo julliti àdduna yëpp ni ko sëriñ Seex tëgge woon moo xam am murit nga moo xam am tijaan nga moo xam tarixa tarixa boo man di bokk nee na sa wàll nga ci li nga xam ne moom la ñuy def nag mooy fa congrès lañ fa séenee def mu juróom-ñeenteelu congrès boo xam ne nii ba sëriñ Seex sosee fédération beeg léegi juróom bi congrès ci lañ war a toll congrès nag mooy saytu li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne sëriñ Seex jëlee na ko fu sori indil nu ko mu waree war a doon njariñ jullit yépp juróomi at yi nag lañ ca tënkoon bañ jógee ci congrès bi nga xam ne bii ci la topp juróomi at yooyu la ñuy tënk liggéey bi nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñuy am amal ci biir juróomi at yi ñu war a toog nag saytuwaat lan lañ ca def ak lañ ca defut ak la la la la ca des nun ko war a defee ndax lépp njariñ la kon soxna si nee na képp koo xam ne nii ab jullit nga rek mu ngi la cay woo ndax njariñ la loo xam ne ni jullit yëpp ko bokk waaye boo ñëwee na nga am xel moo déggoon li nga xam ne moom la fa sëriñ Seex def nga war ko yóbbaal la yóbbaal tas ko ci jullit yëpp soxna si nee na bàyyiwut kenn mi nga woon ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ak képp koo xam ne nii rek yaakaar nga Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rek nee na mi ngi la ci woo wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin walhamdulilahi rabbil alamin mbokki taalibe yi mbokki jullit yi eh, mbokki Sénégal yëpp waa ak waa bitim réew ñu ngi leen nuyu ci turu sëñ xaadim mi toog ah, di leen siyaare di leen joto jotal ab nuyoom bu jóge ci sëñ seex jóge ci sëñ abdourahman mu jëme ko ci jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ak waa àddina sépp ah, di di woo ñëpp ci suñ bis bi nga xam ne mooy war a doon neuvième congrès comme ni ko ñi ma jiitu woon waxee ah, ñi fas ci yéene wone liggéeyam suñu Seex Mbàkke bañ ko tàmbalee ba tey ak fi mu te lépp nag li ci ëpp aju ci am njàng ak njàngale ak ak dimbalante ak dimbalante te loolu ci la mbir mi aju ñu def ci liggéey bu am solo nag boo xam ne suñ sañoon jullit yëpp danañ ko bokk partagé kook ñun fekke kook ñun woote bi nag ñu ngi ciy jiital président de la république son excellence Macky Sall ak soxnaam di woo itam institution yëpp yi ci réew mi yëpp parti politique yi bàyyiwuñ kenn opposant yi ak ñëpp di woo itam waa bitim réew Euh, di woo itam képp koo xam ne kii yaa ngi yëngutu ci njàng ci réew mi ndax mbir mi li ko lal ak li ci li li li gi mooy jàng ak njàngale loolu tam soxla nañ ci expérience ku ne ñu ngi ña ñëpp daal ba ci école yi nga xam ne moo nekk ci réew mi institut yi waa école Sëñ Mourtala ñu ngi koy woo mbokki bi yëpp mbokk fu nit nekk di jàng rek ñu ngi lay woo euh, tarixa yëpp kilifa aada yi ñu ngi leen di wo bàyyi wuñ kenn ñu ngi woo waa ñaseen di woo waa laayeen di woo lépp bàyyi wuñ kenn sëñ bi nee na mi ngi woo ñëpp bàyyi wuñ itam ambassadeur yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal képp koo xam ne rek crédit na ci Sénégal ñu ngi lay woo rawatina nag ambassadeur réewu arab yi yi nga xam ne dañoo bokk ñoom di liggéey liggéey bi ci ay jaar-jaar yu bari yuñ jaar seeq koog ñoom ci njàng mi ak njàngale mi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyi wuñ wuñ kan biti ak biir ak ci biir ak ci biti ñëpp ñu ngi leen woo ci turu sëñ bi bëgg bu ñu ci àggee ñëpp ñëw fekkee waxtaan wi ñu fekkee lii nga xam ni moom lañ bëgg wane ñëpp gis ko bu ko defee dana doon njëriñul jullit yëpp. mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo commencé déggandoo wax nañ leen li waaj a xew wax nañ leen fi muy xewee ñu bëgg leen a am wax nag ni muy amee. loolu moo di ñaari fan la le 26 la ak le 27 janvier bi ñu nekk incha allah darul Darou Manane Touba résidence Cheikhul Khadim gi ci Darou Manane fa la ñuy defee liggéey bi ñaari fan la bis bu njëkk bi le 26 bu ñu sëlmalee saan 17 heures 0 minute la programme bi di tàmbali incha allahu di jeex 19 heures 30 18 heures 30 maanaam bu 6 heures tegalee fanweeri minute lay jeex kon da euh, bis bu njëkk bi mën nañ ne waxtu ak genn wàll. lañuy li ñuy wax ci lañ koy wax su loolu jàllee bu débat euh, cérémonie bi jàllee niñ ko xamee euh, délégué fédéraux yi te ñi ci bokk ñëpp ci fédération bi xam nañ leen ci section yi ñu jóge ñooy daje nag gannaaw bu loolu jàllee vingt et une heures ci guddi gi pour tàmbali seen travaux commission ñan ñu nekk la ñu war a waxtaanee ñu waxtaanee ko suñ noppee ñu def benn plénière mooy commission bu ne. bu doon waxtaanee boo noppee ñu dajale commission yëpp kenn ku nekk wax la nga juboo loolu mooy résolution yi ñuy tënk bu ca suba saa nag di la 27 10 heures la ñuy tàmbali ba une heure loolu itam ñu bëgg leen ko fàttali rek xamal leen ne ci la ñuy waxtaanee nag lanu tënkoon ci guddi gi li commission yi waxtaanee woon lu mu doon ak itam bureau bu bees bi bi nga xam ne moom la ñuy faraat feeg juróomi at ñu liiral leen ko ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci séentu ñëpp leen xamal ne liggéey la boo xam ne. daa am fu mu juddoo waaye kenn moomu ko ab liir nag bu juddoo mën naa am ndey ak baay waaye dana am instant yu muy toll kenn dootu ko moom ñëpp koy bokk dañ koy seet ci njiitum réew rek day jékki-jékki bi caag mu juddu ci barab diw ak diw di baayam waaye day mujj yilif ñëpp wala day mujj bokk ñëpp bokk ko noonu la fédération bi mel. kon nekk lu fi Daarul Xuddoos nekk lu fi waa Kër Sëñ Ceex nekk lu fi murit yi dong ndax ki ko sosoon paase woon na foofu. te sëñ tubaa la ko sosoloon te sëñ tubaa daa waxoon ne biñ ko laajee ne ko fu sax njaboot ne daa wax ne fu julli ji ne rek sama njaboot a nga fa kon nag noonu la sëñ Cheikh wootee ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci séentu ñëpp di ci woo itam ki nga xam ne moo yor turu xali moo yor kàddu xalif général des mourides muy sëriñ a bas moom sëriñ Cheikh Abdoul Khadir ndax li ko waral mooy dëgg la sëriñ bi ci la li ko sëriñ bi def waaye dañ ko seq ak moom dañ ko seq ak moom mu am nu muy doxee ci liggéey bi noo xam ne itam euh, wax dëgg yàlla lii mënee su ko def te yëgul kon ñoo ngi ko ciy woo ñu leen xamal ne juróom-benn junniy délégué lañu woo juróom-benn junniy nit yu jóge ci section yi ñoo xam ne ku nekk am na carte teewul ñu bàyyi fa ñoo xam ne bëgg nañ ñëw waaye duñu mën a ñëw ndax bokkuñu ci délégué yi kon juróom-benn junniy délégué moo war a jóge ci Sénégal ak bitim réew ñëw teew Daarul Manaan bokkut ak invité yi bokkut ak élèves yi xam ne dañuy jóge ci école yi ñëw ci ci bi waaye itam 181 conseillers maanaam section yi bi ñu tànnee conseil yi kenn ku ne téeméeri conseil ak juróom-ñett fukk ak benn moom la ñu tànn ci section yi ñooñu nag ci la ñuy séddale ci ay commission ñiy waxtaan ci wàllu njàngale ñiy waxtaan ci wàllu koom ñiy waxtaan ci wàllu développement ñiy waxtaan ci wàllu organisation ñiy waxtaan ci wàllu communication ñiy waxtaan ci lii ñiy waxtaan ci lee loolu lépp nag mooy 180 yi bu ñooñu nag la ñuy tënk loolu ca la ñu war a dox fii ak juróomi at ñeme nañ ko nag ndax nun li tax ñu ñeme ko te ñeneen ñu ñemewuñ ko mooy yàlla rek ko nu boole te suñu dajee kenn ku nekk danga nga nangoo déglu sa morom ndax dangay ngay xam ne li muy wax waxu ko ngir lu mu def ci poosam waaye ngir liggéey bi dox rek la noonu congrès la ñuy def te congrès lay doon boo xam ne ni congrès war a demee noonu la koy defee ñëpp la ñuy déglu xalaat yëpp dinañ ko jël incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah